laka mujizatun ajazat kullal waraam. waxandoo leen loolu. laka mujizatun ajazat kullal waraam. waa am na ñu bëgg rasulullahi. laka mujizatun ajazat kullal waraam. ana ñu bëgg Sidina Muhammad. laka mujizatun ajazat kullal waraam. yàlla ngay waxtaan ak rasulullahi. laka mujizatun ajazat kullal waraam. yàlla nee na ko. kon ñi la bëgg ñi la bëggul nag du ñu yem. laka mujizatun جزت كل الورى أفمن كان مؤمنا إني كمن كان فاسقا لك معجزات أعجزت كل الورى يلا نردي lay saw laka mujizatun ajazat kullal wara yàlla ni Sidina Muhammad laka mujizatun ajazat kullal wara maa la yónni ngay bégelaate ku sopp yónne laka mujizat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin ibni abdullah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaani ila yawmi din nuxayikum bi taxiyati alislaamiya ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nuyu nañ leen ziyaar nañ leen wante nag di jël nuyoo ak ziyaar di ko jox ci suñu xalifa généraux yëpp sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam sëriñ Muntaxa Mbàkke noonu la ñuy àggee tabaarakallahu ba Laayeen Canaba ak mbooleem këri diine yi nii nag senegal Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu boo leen gisee lii nag ngeen xam ne lislaam xewleeti na wante ki nga xam ne moo gën a lépp yàlla di sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo aye bis ñan ñoo koy aye les jàmbaar nga xam ne jigéenu jàmbaar yi fii Bergamo ñoo koy aye mbokk yi guddik sayyidina Muhammad la wante nga xam ne képp ku jox sam bopp yonent yàlla Muhammad am nga lépp ñii nag soxna yu tedd yi ñoo xewle kañ lañ xewle le 18 septembre fan lañ koy defee ci zawiya Abul Abbas Ahmada Tijaani fa lañ koy defee kon nag tabaarakallahu boo leen déggee lii ngeen xam ne bis bu ne l'islam moo ko moom moom moom guddi moom bëccëg gi moom lépp kan la nag mooy sayidina muhammad mam Maodo nee na wa maa xalaqa arrahmanu cheyan li nafsihi siwa sayidi almahmudi wa huwa habibu wa awjada baaqin li xalqihi nag nga xam ni moom kese la yàlla tagg moom kese moo gën a lépp nag wante bu ñu yàlla boolee ci xeetu sayidina muhammad ndax yàlla moo njëkk a taggu moo njëkk a tagg xeetu sayidina muhammad ni leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmaaruf wa tanhawna anil munkari kon nag tabaarakallaahu boo leen déggee lii ngeen xam ne annonce la wante lislaam moo xew leet képp foo xam ni ci àdduna bi jullit mi ngi fi ñu ngi lay woo ci takkusaanu sayyidina Muhammad ñan ñoo koy amal nag wante nag les jigéen de jàmbaar tabaarakallaahu bëgg diine bëgg social baax lool di jàppale askan wi kon nag tabaarakallaahu dañuy jox sëñ Samba buñ ne sëñ Samba xel yëpp dem ci yonent bi ndax nam koy taggee kon mbokk yi ñu jox sëñ Samba. huwa muhammad ibn abdullahi abdulilahi najlu abdulmutalibi sayduna muhammad ibnu arabi hashimi xayr alarabi ibnu sharifi xawmi abdalmanafi yeneen baa ngoog huwa almuraadu min jamil xalqi huwa almukarramu bi izzi sabqi muhamadul amin wa siraaju fi samaa'i wal ardi ji waaya neex a way huwa almukarramu bi izzi sabqi wa siraaju fi samaa'i wal ardi huwa shariiku lanaa wal ba'du huwa alladi yuxti ma yashaa wa mislo lam talid nisaa kon nag ñu ngi jox soxna Abba Diop tey lii nag bu ngeen ko déggee maxtu maxfu max matxu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yont yàlla Muhammad xew la ñen ñoo ko xewal waa jàmbaar jigéeni jàmbaar yi nga xam ni ñu ngi ci diine ji di ci dox ki leen jiite mooy soxna yaasin moo woote bësu sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu mbokk suñu xarit euh, Pape An moo koy def ak suñu rakk Cheikh Abdoul Ahad Guèye ñoo ñooy taxawu guddi gi ci daraja yont yàlla Muhammad ñu ngi jox soxna Abba Diop mu euh, sànni ci ay kàddu bismillahi na waliyallah asalaamu aleykum wa rahmatullah wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din barke borom Tuuba waa Bergamo waa Italie ñi ngi leen di niyu di leen ziyaar di woo ñëpp ci lii nga xam ne moo tax a jóg muy kàddu bisub yonent bi sallallahu alayhi wa muy tànku taxawu ci lislaam fii luñ ci man ci li nga xamante ni mooy tagg rasulullah di ci ànd ak oustaz euh, Pape Anne ak euh, Abdoulahat Guèye ñu fas yéene ñëw ànd ak ñun ca nañ ko daan amale nga xam ne dañ daan ànd ak ñun ci bisub Mouhamed daan ñu wax ay jikkoom daan ñu wax taaram ba daan ñu wax wooteem ba tey nag soxna Yaasin di ko woote fii ci Bergamo ñuy woo ñëpp di woo Italie yëpp di wax këru diine yi waa euh, daara ji ñi ngi leen di woo waa zawiya bi seen kër lañ ko woote kon nag ñi ngi leen di wax bu kenn manqué képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñi ngi lay woo ci bis boobu di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu fi amanillah angibillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di woole jàmbaar di tali ci bés bi mooy le 18 septembre bisu Seydina Mohamed bi euh, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax comme ni ko suñu yaay Absatou Diop waxee rek comme ni ko soxna Aba waxee nañu teel a génn ah musóor bopp yi teg suñu kol yu baax macha allah bisu Seydina Mohamed moom ku ne xam na ni moom lépp lu ci war kon boog ñi ngi woo ñëpp di gërëm ñëpp di ziar ñëpp. auzu billahi mina cheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim maa ngi musu ci cheytaan di làqu ci ginnaaw suñu borom di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taalaa wa barakaatu maa ngi nuyu wa àddina yëpp di nuyu diaspora bi di nuyu aussi jaspora italienne bi macha allah. di wax nag ku dégg woote bi comme ne ko suñu yaayu Absatou Diop waxee macha allah ak suñu sœur yi ak suñu càmmiñ yi ah ku ko dégg nag xam ne kookoy sangu-sangu yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama turandoo. ah jàmbaar yi nag ñoo woote fu ñu wootee ci zawiya Seydina Cheikh le 18 septembre à partir de 18h fële ca zawiya Seydina Cheikh incha allah ñu ngi leen fay woo yéen ñëpp ngeen teel a ñëw ngeen def tagal ba mu baax sol weex tàll yëre yi jot ñu sol suñuy kol yu rafet macha allah daal di fa yéene nag ah tagg sang bi sallallahu alayhi wa sallam ànd nag kan oustaz Pape Koumba Anne ak Abdou Lahad Guèye macha allah waaye bu ñu fa jógee nag daal di dem fële ca Sénégal macha allah ah di nuyu nag suñu président son excellence président Macky Sall macha allah di wax ne moom nag a ah, invité d'honneur la macha allah bu ñu fa jógee nag ñëw si suñu la première dame Adja Marème Faye Sall muy suñu marraine macha allah waaye nag bu ñu fa jógee nag di wax nag borom bés bi nag mooy kan ñu koy wax nag son excellence. président Idrissa Seck macha allah di wax ne nag bés bi moom grand bu bu rëy la ci macha allah buñ fa jógee nag woo parti politique yëpp nag amuñu xaaj ñu seen ñoo ngi woo aussi association yëpp ñu ngi leen di woo waaye di kilifa diine kilifa aada ñëpp ñoo xam ne tey ñoo ngi ci Italie ak diaspora beeg Sénégal ak monde entier ñoo ngi woo ñëpp macha allah. waa réew mi Bergamo nag ku ne xam ne ne ak réew mi Italie ak réew mi monde ku ne xam ne nag bés bi seen bës la macha allah kon nag na ngeen teel ñëw macha allah waa réew mi maa ngi ciy woo ñëpp nag. muy fédération réew mu itali macha allah ñoo ngi woo ñëpp. asalaamaaleykum yéen waa jàmbaar de Italie ah man la ñoo ngi woo sunu mbokki waa jàmbaar yëpp di woo sunu mbokki jullit yëpp ci guddik Seydina Mohamed di gën gi mbindeef di woo ñëpp nag di woo waa Brescia di woo waa Numbenzaane di woo waa Gardone woo nañu ñëpp ci guddik Rasulullah gën gi mbindeef affaire ba nag ma ngay amee ca Bergamo soxna Yacine moo ko jiite sunu la président bi nga xam ni jàmbaar de Italie moom moo ko jiite di jigéen ju mën góor macha allah ñoo ngi woo ñëpp nag oustaz Pape Anne moo koy conférencier jigéen ñëpp nan takku ñëw ci guddi Seydina Mohamed waa gën gi mbindeef loolu nag laa amuñ ci lu may wax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah xew-xew bi na lan la bisub Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam ki nga xam ne moom rek moo jar a tàntal mbir mi fan lay doon Bergamo ku ko woote soxna Yacine Fall ah borom trois euh, dammee li nga xam ne mooy maamam ñu duppee ko nag Yacine ma nga xam ne lépp luy dox ak luy naaw ak luy raam Seydina Mohamed la alay salaatu wa salaam bis bi nag. kan moo koy kan mooy def conférence ba kooku oustaz Macoumba Anne lay doon borom TFM waaye ku koy jàng Serigne Abdou Lahat moo koy jàng bëggkatu Seydina Mohamed bi taalibe Xaadimu sol boobu nga xam ne bu waxee ci Seydina Mohamed rek nga kontaan. nañ ko préparé te fas yéene génneen mbuba yu riis yi takkaay yu riis fas yéene tànta Seydina Mohamed alayhi salaatu wa woo nañu Italie Brescia bàyyi wu ñu fenn fu waay mën a nekk rek woo nañ leen ci bis bi nag. la ilaha illallah Mustafa ñëw na. bilaay kenn du yoneen مولد كان منه في تالي الكف ري وبال عليهم وابا وسيدنا محمد